nanu bamtu nettali bi weesu benn ci seen xalaat lan la yeesu bëgg a wax bi mu nee lii sama deret la ji fas kóllëre gi te mu tuuru ngir ñu bare jot mbaalu bàkkaar yi mu ngi doon fas kóllëre bees ak i taalibeem képp ku gëm ne deretam jooju fay na say bàkkaar yàlla dina la baal te boo deewee dinga mën a dëkk ak yàlla ca àjjana ba faw ñaar ci seen xalaat lu tax yéesu ñaan ne bàyyi soo ko bëggee teggil ma kaasu naqar bi moo na bu mu doon sama coobare waaye na sa coobare am ndaxte yeesu xamoon na ne dina gàddu bàkkaari nit ñëpp ci bant bi te bu boobaa yàlla dina ko dëddu ñett ci seen xalaat lu tax mu lëndum këruus bi yéesu di dee ci bant bi ndaxte yàlla miy leer du teew fu bàkkaar nekk ba yeesu gàddoo bàkkaari àddina yàlla dafa ko dëddu ñeent ci seen xalaat lan la yéesu bëggoon a wax bi mu nee lépp mat na yéesu wax na foofu def na lépp li ko baayam santoon nangu na mbugalu dee ngir fay sunuy bàkkaar yéesu musal nanu ci mbugalu seytaane ci bàkkaar ak ci dee juróom naka la xarekat yi xamee ne yeesu saay benn xarekat jam na yéesu ci wet ak xeejam noonu deret ak ndox tuuru waaye deret bi ak ndox mi ànduñu woon loolu wone woon na ne yéesu saay na ba noppi juróom ci seen xalaat lu tax yàlla bàyyi ñu rey yeesu rey bu metti boobu mbind mu sell nee na ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doom ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu jeex te doo sànku mukk yéesu dee na ngir sunuy bàkkaar doon na sarax bi mat sëkk moom rekk mooy ki amul bàkkaar ku mën a fey sunuy bàkkaar ngir nu mën a taxaw fa kanam yàlla juróom lu xew ak néewu yeesu yusufa mu arimate ak nikodem jël nañu néew bi defar nañu ko sang ko denc ko ci ab bàmmeel bu bees